kuma ni kawana mm-hmm. na ko ni fa do mo ni la fa ko ni ler le ay tene ha kulum be tan yo so hakkilo la ko ni ko ngamin jaabi je dron dino mode na kono fon ka bate ha but ngamin fo dron wo ngamira wo kanyanta wa wala ngamira because ngamin ye do soto ye ye ye ye do ko soto yitaje ning ima soto ye le do muta fo ye do soto min fi se atawati manke biditi ning itadata julli waxtu kilinna dron ite manke muslimote wonte mm, mm, mm, wonte dino o kay ni koye bamutala ah. hanni ɓe ɗawoɗa e bamutala jeele tubabu dule wara beela banko kam aɓe mo kilingoleti Eh, foog naa loolu leer na li li moo dëgëral foofu mooy am na ñu nekk bitim réew ñoo xam ne sax niñ fonkee diina bi ñi nekk fii fonkee ko noonu loolu nag dëgg la moom te muy dëgg diina moom boo ko paree jàppa foo munta nekk rek di nga ko fa jàppee nekk bitim réew wala nekk fii eh, mënu la koo teree jàppa eh, benn tey foog naa am na ku nekk ci laaj bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum ah. waaw bisimilah Aida waaw a ɓe ñaaɗe mi jan dron allah programme o weɗi yaari mbakela abaraka ah, to ɗumolum ka travail mba jiiɓe kan ka fontane mbakela e lakkuwar mm, abaraka ɓe ah, duwala e alamañi place o ay sa ñatta amin yarabi amin abaraka baake amin abaraka jumale oustas fana mba contanawa jumale fana mbe joola itoɗima ah ok kooku dem na eh, imaam daf dee am loo xam ne dinay am ci bentey rek li ñoo wax ne jigéen toppa ndigali jëkkëram waaye am na fu mu war a em am na ay jigéen yoo xam ne seen jëkkër du ñuy oor te feebaruñ dara jotut leen waaye nag buñ xëyee dinañ leen jox dépasse ne par force dañ leen war a toggal luñ lekk ndax loolu jigéen ji war na koo nangu te fekk moom mu ngi oor gis nga toppal laxdar yi dafa indi benn masala bu tuuti mu ne mu ne sa waa jur euh, topp ko ci ci kaw topp yàlla ci li neexil yàlla mm-hmm. bu la wooyee loo xam nga ne neexul yàlla nga mm-hmm. bàyyi ko nga toppal yàlla taxte mm-hmm. moom dafa am cër bu mu am ci yow waaye nag moomu la du sa jabar euh, sa jëkkër moomu la sa doom bi nga jur am na ci loo xam nga ne even loo fii boo ko tegoon tey tey loo dal sa kaw soo moomoo ko yàlla daf ko bind jaare jaare la ko ci yow teraanga beeg eh, sa digganteeg moom la fa war a jaar mu nga fa mm. waaye nag am na lu xew mm. mooy ne moomu la mm. ki la moom mooy yàlla kooku nag moo lay santaane bu ko toggal daal bu yeboo ngeen xeex ci ndax du la jar demal boole koog nit bisimilah asalaamaaleykum kilifa yu koy def asalaamaaleykum waaw wàññi sa télé bi tuuti waaw hello na ngeen def jàmm rek kay seen programme bi na solo trop fooy ootee baaba maa ngi ootee Kanifing tur bi naka la Ousmane jërëjëf Ousmane dafa am loo bëgg a laajte waaw waaw dama am contribuer si programme bi. Mhm, mhm. because am um, dégg naa Abdoulaye Jana bu kooloon. am di waa affaire oustaz bu nekkoon si programme bi démba. Mhm. am programme bi maa ngi ko doon folo. am waaye comme oustaz bi am xëy na nit ko dee déggee déggit mi moo utee. waaw. waaye da ngaa ne oustaz bi moom démba lu mu set la. am mm-hmm. um, because comme lu moo wonee rek mooy um, doomi aadama am mm-hmm. um, si islaam si loo mun di nekk loo xam ne dafa islam na nga ko war a moytu dëgg waaye waxut ne am dem Europe baaxut mm-hmm. because moom si boppam joxe na exemple ne moom si boppam sa musoon naa nekk Europe waaye mu ne su fekkee ne yaa ngi nekka Europe yow am ut alali àdduna jaral la ba yow sa islam bugg a yaaxu jaru ko kon jarul nga dem Europe mm-hmm. noonu la ko noonu la ko mu ne soo seetlee amoon na góor boo xam ne joxe na exemple ku doon liggéey ca Tatamo Trust Bank mm-hmm. waaw kooku am liggéeyam jar demoon na ba bugg a yaaw nit affaire bi néem mm-hmm. waaye mu gëm yàlla gis ne moom muslim la mu jaral ko mu bàyyi liggéey bi ci la ko yàlla beneen liggéey comme daf doon joxe advice ne xam nga donc comme léegi yuut si soo seetee ñëpp a ngi wàññi fi tukki tukki tukki. Mhm. waaye tukki bi bu mu ñëwee jaral tamit ba yaa suñ diine. booba dafa fekk bi ñu nekkee fii sax toppuñ seen diina bon. Mhm. exactly waaw waaw baax na jërëjëf. comme moom advice yooyu la doon joxe daal. waaw waaw baax na jërëjëf. waaye waxut ne bu nit yi dem Europe de. waaw dëgg la dëgg la. foofu leer na nag fi nekk Ah, waaw léegi foofu leer na am nañ beneen laajte ñu mun a laajte rek. ci mbiri Ayda leneen dama am lu ma bëgg a leeral. waaw waaye foofu naa foofu leer na ba pare. dafa am lu xew. waaw bi ñu laajee lan laa wax dama ne dégguma ko xaw ma ustaas bi xaw ma lan la tontu ak lan moo tax mu wax. ak naka la doon waxee. dëgg la waaye man ci loolu laa tontoo. waaw waaw loolu léegi léegi foofu leer na moom bu baax a baax am na keneen ku nekk ci line bi ñu dee beneen call asalaamaaleykum ak ah, kooku dem na. Eh, te xam naa ne sax waxtu wi moom li ci des eh, bareetul torop eh, ñu continuer rek ci mbiri koor gi ak niñ surtout ni war a dimbalante ci suñ biir ñu ni neen am na ku nekk ci line bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum Eh, waa waaw foog naa kooku dem na eh, imaam eh, ñu continuer rekk xam naa léegi ah, waxtu waxtu bi jeex ñeenti minutes rek moo ci des dafa am leneen loo bëgg a tëjee programme bi loo mën a dénk suñu mbokki jullit yi surtout nag jigéen ñi. Mm-hmm. ah am na ku ko fi junja léegi mooy góorgóorlu. Mm-hmm. góorgóorlu bi moom solo bi it ci la ci la bokk. Mm-hmm. benn. góorlu bi respect sa jëkkër respect ki nga xam ne moom la la yàlla booleel ci àddina mm-hmm. yàlla moom moom programme mm-hmm. mooy seet ku ko neex am na ku nekk ci line bi ñu jël kooku asalaamaaleykum asalaamaaleykum maaleykum salaam bisimila hello hello malen waaw dafa am lu ma bëggoon a laajte. waa laajteel te nga wàññi télé bi tuuti rek. ma wàññi télé bi. waaw. Aïcha bisimilah. ma ne léegi soo leen dëkkee yéen yéen yéen neen. Hmm. te léegi amantewu leen xol bu rafet rafet nag. Hmm. ngeen nekk ay dëkkandoor te am leen xol bu rafet. xam nga yàlla moom dafa bind nit ñi. nit ñi dafa bina nit ñi te nit ñi emu emu emu foog ñu rawante mm-hmm. waaye nit ñi nag loolu am na ñoo xam ne daal loolu lañ bañ a bañ a gis mm-hmm. mel ni ngeen dëkka daal te jubóowu leen mën ngeen a jubóo sax waaye jubóo bi am na ñoo xam ne daal wane wane wuñ ko ene wantewu leen jàmm bon waaw waaw kay waaw loolu day li ma ciy tontu mooy ne yonent bi mu ne ay nit waruñoo dëkkandoo lu ñetti fan kenn waxul sa moroom yonent bi tekku na leen te ki jëkk wax ne salaamaaleykum kooku moom moo am yool bu rëy bi waaye nag dinaa la yëgal leen na àddina eh, am na xëccoo yoo xam nga ne dañu koy def yëg mooy iñaananteeg foogalante léeg nga foog kenn romb nga ne kii daf maa iñaan wala kii daf maa bañ bu la waaye bu fekkee ne nit ñëpp dañoo defar seen xol ba mu set amal loo kenn xarma yàlla ku amal xarma yàlla tey li la yàlla sédd moo la ko sédd bu la bañee bi dafay bañee li mu lay lor dafay tuuti xanaa mu ñaaw ci li la yàlla sédd jox na la ko tey keneen ku ñëw mu ne daf la koy xañ kooku du yomb de waa imaam dafa am lu bëgg a laajte. Euh, mooy ne euh, am na ci ñoo xam ne li ñoo waxee daxa oor. dañoo oor waaye suba ba ngoon ñu ngi toog daje di play lodo. surtout jigéen ñi nga xam ne dañoo toog rek nekk ci lodo bi play rek di play lodo bi rek ndax loolu ànd na ak koor gi. balaa ñu tëj koor njariñ bi. Mm. dafa bari. boo toogee nga noppi defoo dara. Mm. yaa ngi mel ni kuy wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mm-hmm. booy jaamu yàlla wala ngay liggéey hmm. li ngay liggéey yool bi dañu la koy yokkal hmm, hmm, am na ñoo xam nga ne ci ay jigéen dañuy dem ci fi ñu yeneen daara yi am na yeneen daara yu fi nekk dañu fay dem di fa fortaatu diine nit ki moom li ma doon wax rek nit ki da ngay am interest ci sa diine am interest ci xam lu baax bu weeri koor jotee nga dem toog ci sax sa wetu kër sa wetu jëkkër sax nga toog déglu ko